bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaatan wa salaaman ala almustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli safa maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu sun borom di wax bismillahi arrahmani irrahim di sant sun borom di julli di sulmal ci Mustafa ak ñuñam ak sama baam ginnaaw loolu noo ngi nuyu waa daara ji yëpp nuyoob islaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. am mbégte dellusiwaat ak yéen ci seen jotaay bii di Sëriñ Tuubaa ak koor te nekkoon ak yéen ci xasida ak yaa xayra dayfin muy xasida goog Sëriñ Tuubaa da ko terte woon koor di ko tagg di ko kañ di wane njariñ yi nekk ci moom di ko ñaanal di waneel cofeelam ci moom di wane li yàlla def ci weeru koor wi di wane ne weeru koor wi mooy gën gi weer te sëñ bi bi ngi ko way ci ñetteelu kooram nag ci géej gi ci maa yombaa ñetteelu kooram euh, nga xam ne koorug jey sa sin foofa la ko defee koorug day sa sin fa la ko defee koorug xay sa sin nag ñëw mu def ko nga xam ne sëñ bi wax na sax dat bi ci biir xaama xam xaama خمسة عشر نلقى وحي نحن أتوم عام لكتوديوكو أتوم سنة نحن أتوم ناتانيال أكيول كون وحنا ويارو كور موي جن جن تاي نك رسول نيار فكير بند أك جروب نيار نيجي تولون شي ومذهبا كل شيطان ومذهبا كل أحسان نديق بها في الدهر أفئلة يا مصيبا نكدي ñëwoon nañ ci yi nga xamee ne day sabab alxusn yi nga xam ne day sabab njàqare te sëñ bi wax ne weeru ko dafay dàq njàqare bokk na ci yooyu seytaane bi nga xamee ne mooy noon bu njëkk ci e, nit ki bokk na ci joxe e, ay axsaan weeru ko dafay dàq bokk na ci li joxe njàqare ak ay stress mooy kéefër moom itam weeru koor da koy dàq bokk na ci lay joxe ci asbaabul xusni te mooy yi joxe njàqare te mooy nit ki boo dee jëfante koo xam ne nii daf lay feeñal safaanu la nëbb ci moom loola tamit bokk na ci lay jural nit euh, waaye tamit euh, bokk na ci lay joxe njàqare ñàkk a ñàkk a ñàkk euh, def istislaam ñàkk jébbalu ci dogalu yàlla ak gërëm yàlla doxal loolu boo ko deful rek foo toll euh, njàqare ak ay jafe-jafe di ñëw ci bokk na ci yi waral njàqare mooy mm, bàkkaar ak mooy yàlla soo gisee ci aaya ba ma tuddoon démb wa xaalu alhamdulillahi lazi asnaba anna asana inna rabbana la xafurun sakoor waaw yooyu tamit daa bokk ci liy joxe euh, bàkkaar bokk li joxe alxusnu te mooy njàqare bokk ci yooyu ñàkk a gëm yàlla ak gëm bis bi ñàkk a gëm yàlla ak gëm bis loola moom itam dafay jox nit ki ay jafe-jafe ak ay problème waaw kon foofu lañ yemoon waxoon nañ ne mat na 42 sabab kon danañ ci indiwaat tey li ñu ci waxtu yi may rek incha allah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 Euh, boole ci boole ci fukki baat yi mu doon da lay jox trois mille huit cent soixante trois mille huit cent soixante gis nga baatub ramadaan boo ko adadee yokk ci juróomi araf yi mu doon euh, moo lay jox trois cent quatre vingt boo ko multiplié part dix moo lay jox trois mille huit cent soixante bi nga xam ni mooy li mu béy doo kon xasida gu gu yéeme la xasida gu neex la euh, sëñ bi waaye ko ci Bahrul Basid euh, kon dañuy continuer rek fi ñu nekkoon te mooy di indi sabab yi nga xamee ne dafay joxe xusnu bi nga xamee ne bokk na ci yi joxe njàqare ak ay jafe-jafe ak ay fardam ak ay xati xol xat xati xol mooy ñàkk gëm yàlla ñàkk gëm bis penc ba waaw ndax ñi gëm yàlla gëm bis moom dañu tit dañu ragal kon bo gëmul yàlla gëm bis penc nak faaw nak a al khawf ak al khawf dikkal kala inna alladina amanu wal hadu wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alayhim wala hum yahsanun batay bokko na ci li joxe li joxe ahsan li joxe jaxare ak ay stress ak angoisse mooy tàqalikook soppe yi tàqale ko ñi nga bëgg loolo bokk na ci li gën a mën a sabab ci liy joxe njàqare loolu boo demee ci suurtu yuusufa wa tawalli xanum wa xaala yaa asafi ala yuusufa wab yarat aynaahu min al xusni fa huwa kasimun suurtu yuusufa aya 84 ba tay gis nga bokk na ci liy joxe al ahdaan te mooy ragal bis penc ba taxawaay bis penc ba ak ragale ga waaw لا يحسنهم الفضل الأكبر وطلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعودون كون كو خمني نيجا فالي و باي وخل يوم القيام باي و رجلا نو ديف دي تاخلف اي بروبليم اي جافي جافي باتاي وخي نيت أكسيني وقتان سيني جوك سيني فار فار لو ييب بوكو نتي لي al ahsaan te mooy njàqare ak ay stress te mooy kalaamu naasi wa ahadisihim moo tax suñu borom ne xad naalamu innahu la yuxsunuka allati yaquluuna fa innahum la yukadibuunaka walakin adaalimina bi ayaatillahi yajha yajhaduuna al anham aaya fanweer ak ñett ba tey bokk na ci liy joxab li liy sabab njàqare ak xat-xati xol ak xat-xati dënn ak ay jafe-jafe mooy al ihsaas bil ihanati wa dulli nga yëg ne dañ laa toroxol dañ laa suufeel dañ laa doyadal loolu day joxe al usnu kon weeru koor dafay dàq toroxtaange day dàqal nit ki mu yëg toroxtaange ak yëg ne timit dafa dañ ko suufeel loolu sun borom di wax ne wala sun ka xawluhum ñoom de li ñuy wax di la jéem a tuteel ba la ba la di la wàññi di la doyadal ba la yàqaloo de inna al izzata lillahi jamian تيب نغا ليب ليبكم يالا كو موم مبولم سين يالا ما نغا خامني هو الصيم علي موي ادي ديك جا موي ادي خمجا سوره سوره يونس ايه جوروم بن فك اك جوروم كون ويرو كور داي داخل نيت كي علي ساسو بالاهانه والذل واي باتاي بوكنا تي لي جوخي الاحزان تموي الحزن موي زو سن نياو نيورتو كون كيرو كو ويرو كور دا فاي داخ نياو نيورتو Euh, loola falaa yoxsun ko xaw lahum inaa naalamu maa yusirruuna maa yaxnuuna ñoom day jort yi ñu jort muy ñaaw yu du ko wax loolu bu mu la jàqaloo ñun yàlla xam lañu la feeñal ak la ñu nëbb suuratu yaasin aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-benn kon weeru kor dafay dàq li ñuy wax zu zann ndax zu zann daa bokk ci liy sabab njàqare bokk na ci yooyu mooy dox ful imaan Mm, gëm yàlla gu lompañ gëm yàlla gu lompañ day waral nit ki fu mu toll ay jafe-jafe ak angoisse ak ay naqar xol ak ay jafe-jafe lu tiit rek mm, mm, lu tiit rek mu rëkk tiit kon weeru koor dafay dàq du xofal imaan weeru koor day dàq gëm yàlla gu lompañ xoolal sunu borom wax umaa nun sal mun sëriina ilaa mubasiriin amun sëriina ko man amana wa aslama fala xawfun alayhim wa lahum yaxzanuun ñun de yónni wuñu yorante yi lu dul ñuy bégle ak di xuppe waaye ku gëm yàlla ku am gëm yàlla gu dëgër te yéwénal ñooñu duñ jàq duñu tiit suratul anham aaya 48 ba tey bokk na ci liy joxe stress di joxe ay xat-xati xol di joxe ay problème ak xamm xëmm muy alxiiratu wal masakinu sawliya firaange képp koo gis mu fiir du du jug ci ay problème képp kuy sëy ba noppi fiir doo jug sa sëy nekk ci ak rëng-rëng képp koo xam ne da ngaa fiir moo xam ki ngay fiire ci wàllu politique la wala ki ngay fiire ci wàllu sëriñ la wala ki ngay fiire ci wàllu commerce la képp koo xam daal fiir nee na ci yow ak anamu fiir gu mu mën a doon kooku doo jug ci ay stress doo jug ci njàqare doo jug ci ay jafe-jafe loolu am na de nur ji man tasaa minhunna tur ji man tasaa na وتحوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن حصلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أحيانهن ولا يحسن ويرضن بآتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله وكان الله عليما حليما الأحزاب آية 51 bokk na ci liy joxe stress liy joxe ay jafe-jafe liy joxe alxalax mooy nit xeex ba kanam ñàkk a ba kanam bakkanam ngir ngir ngir eh, xam dëgg dëgg xaqiqa dëgg dëgg la réalité waaw waaw faltaxatuhu aalu firawna li yakun lahum aduwan wa xasana inna firawna wa haamaana wa junuudahuma kaanu xaatiina suuratul Qasas aaya juróom ñett gis nga Moussa yonte yàlla Moussa bañ ko sànnee ca yàmm ma ca géej ga ñooñ firawna ñoo ko jël yonent suñu borom nee ngir mu nekk nag seen noon ngir mu nekk njàqare ci ñoom kon bu ñu xamoon dëgg-dëgg ne foofu lay mujjee bu ñu xamoon dëgg-dëgg mbir ma kon mbir mi du àgg foofu kon ñàkk a xam li xew ñàkk xam la réalité dana jox nit ki stress loolu weeru ko da koy dàq ba tey bokkoon na ci liy joxe njàqare ay xat-xatu dënn ay problème ak ay jafe-jafe tiit njàqare موي alxawfu ala isaabatil ahibati bi darari nga ragal ñi nga sopp lar do len lar do len sa njaboot ak say soppe nga ragal lar do ci ñom loolu dana jox nit ki ay jafe-jafe loolu bu njëloo ci alxuraan dañ ko fek wa awhayna ila ummi musa an ardihi fa isa khifta ali fa alqi fil yami wala taxaafi wala taxtani inna radduuhu ilayki wa jaa'iluhu min almursalin suratu xas aaya juróom ñaar ba tey bokk na ci lay joxe al usn muy safarul ahibba aw baaduhum ñi nga sopp ñu tukki wala ñu sori la loola tamit bokk na ci lay joxe njàqare moo tax sunu borom wax ne faradatnaahu ila ummihi kay taxarra aynuha wala taxsana wali taalama anna waxdallaahi xaqut walakin aksaru laa yaalamuuna xasas sóoratu xasas aaya fukk ak ñett moo tax sunu borom ne ma delloo Moussa ndeyam ngir xalam dal mu bañ a jàq mu bañ a tiit ngir mu xam ne la ko yàlla digoon lu dëggu la waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu kon mu ngi noonu ba tey bokk na ci li sabab alxusnu te mooy at tajaaxulu wal ihmaal te mooy réer réerlu ak sàggante yooyu yëpp day joxe alxusnu kon yooyu yëpp weeru koor da koy dàq loolu mën nañu koo fekk ci suñu borom wax ne xaale inni la yaxsuna nii anta saaba bii wa axaafu an yaakalu dibu antu anu xaafiloon surtout yasufa surtout yusufa aya fukk ak ñett ba tey bokk na ci li joxe alxusnu te sëñ tuwa wax ne weeru ko dafay dàq bépp njàqare mooy bari jàmbat te lu tax nga mën a àgg ci li nga bëgg loolu tamit day waral stress day waral njàqare weeru kor day dàq loolu xaala innama asko basri wa usnuya ila allahi wa aalamu min allahi ma la taalamuun سورة يوسف آية 86 جروم يتفق أك جروم بكونا تلي جوه استرس لي جوه خط خط خل خط خط دن أي جف جف أو نكر تيت أم جاكره بكونا تلي كوي جوه موي البعد عن الله وعدم الاستقرار سوري الله أكنيك أم استابيليتي لولو داي جوه الحزو moo tax weeru koor day dàqal nit ki loola weeru koor day tax nit ki jege yàlla weeru koor day tax nit ki am stabilité moo tax sunu borom ne wax ne qul nahbitu minha jami'an fa imma yaatiyannakum minni hudan fa man tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala ba tey bokk na ci liy joxe alxusnu te sëñ Tuubaa na wa musiban kulla ahsanin weeru koor dafay dàq bépp njàqare o honna en mbatu kulli bi ak mbatu ahsan bi dana ci ñëw jàmm fa bi ñu ko def ba noppi doon nakki la ak mbatu kulli bi li may tegtale foofu yëpp waxon naa dana ci ñëw damay àggale ci lancé bi ma nekk rek moo tax ba tey bokk na ci liy joxe njàqare xat-xati xol mooy nit ñi ñàkk reconnaitre lu rafet li ngay jëf jëmeeku ci ñoom ak li ngay daj ngir ñoom loolu kum dal faaw nga am njàqare adamul ixtiraafu naasi adamul ixtiraafu naasi bi ihsanika wa ma faxaltoo min ajlihim loola day joxe stress loola weeru koor da koy dàq suñu borom nee na alladina yunfiqoon amwaalahum fi sabilillahi suma laa yutbi'uuna ma anfaqoo mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ba tey bokk na ci liy joxe al bokk na ci liy joxe alxusnu te mooy ñàkk joxe ci yoonu yàlla wala li ngay def nga di ci ngis sal di ko fësal di ko bëral koo dimbali wala koo xet rek foo tax a wax ko fa loolu lay tax nit ñi euh, bañ la jëppi la subaa nag nga boole joxe sa alal bu noppi boole fa nit ñi la faaw nga am naqaru xol faaw nga am ay jafe-jafe ak xam xam loolu lañ ko fekke ci alxuraan te mooy allaziina yunfiquuna amwaalahum bil-layli wan-nahaari sirran wa alaaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa laa xawfun 'alayhim wa laa hum yahzanuun ñàkk a def ñàkk koo defee nii ñëpp alxuraan santaane mooy jur euh, alxusnu ba tey kon weeru koor dafay dàq loolu ñoo ngi ci wa musiban kul asaanin ba tey at taqsiiru fil ibaadaati gàttañ lu ñàkk jaamu yàlla nam waree gàttañu ci loola tamit bokk na ci min asbaabil xusni ci lay sabab njàqare loola tamit weeru koor da koy dàq ndax weeru koor gis na ne bu ñëwee kenn ku ne sa jaamu yàlla dana dolliku ñi daan naa ñi nga xam daawuñu naafila sax su guddee danañ naafila fukki rakk ak ñett nga xam ne sa fi ci la bokk ña ko mënul tamit lañ man danañ ko def kon nga xam ne ci weeru koor at taqsiru fil ibadaat dafay day dàqu moo tax kon euh, wa musiban kula saanin day dugg foofu kon loolu leer na sun borom nee na inna alladina amanu wa amilu saalihaati wa aqamu salaata wa aatawu sakaata lahum ajrun inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun suuratu baqara aaya 277 lii lislaam wax santaane ku ko deful rek faaw njàqare ak ay stress ne ci yow te mooy gëm yàlla di jëf-jëf ju baax di taxawal julli di joxe asaka ba tey bokk na ci liy joxe euh, stress di joxe njàqare mooy attasaamu bi wa suxuur bil xirmaani maanaam euh, di di di di di di di di di yëg ne moom yow dañ laa xañ ak euh, di def lu ñuy wax attasaum loolu yëpp day joxe bokk na ci min aslaabil xusna mooy attasaum mi ngi jóge ci gaaf gaaflu farihina bima atahamu llah min fadlihi wa yastabsiruna billati lam yanaqa min qalfihim ala xaufin alihim walahum yahsanun bokk na ci li joxe stress li joxe xat-xatu xol xat-xatu dënn njàqare ñàkk xàmm coloré ak yëg euh, gàttañ gi gi nga gàttinlu ci kanamu ñeneen ni loola bokk na ci liy joxe euh, min asbabil xos di nga xam day joxe xat-xatu xol loolu weer koor da koy dàq assuhuuru bil hazimati wal inkisaari wal hajji maam nga yëg na yow mi euh, lot dangaay lompañ yëgu lompañ ak inkisaar ak ku dem ak suufe loola daa bokk ci liy joxe ci liy joxe euh, liy joxe njàqare ak xat-xati xol moo tax daan wax ne wala tahinu wala tahzanu bu leen doyadi bu leen jàq wa antumul axlawna in kuntum muminina ba tey loolu bokk na ci lii nga xam ne day joxe min asbaabil xusni weeru koor da koy dàq ba tey ñàkk a rëccu ci lu weesu ak ñàkk a gërëm ci lu teew sa aal bi teew ñàkk a gërëm aal bi teew ak rëccu ci lu weesu bokk na ci li joxe bokk na ci min asbaabil xusni loolu weeru koor dafay dàq ñàkk ragal yàlla ak la ciy toftaloo ci juddoo ci xol bu wow ak yàqu xel loola tamit bokk na ci liy joxe euh, euh, min asbaabil xusni joxe njàqare loolu weeru koor da koy dàq euh, weeru koor da koy dàq ndax weeru koor sax li muy joxe mooy ragal yàlla te ñàkk ragal yàlla daa bokk ci liy joxe stress liy joxe naqaru xol kon weeru daa bokk ci liy dàq euh, min asbaabil foofu ci la bokk mu ngi bokk ci umus yi man kullu asarin ñàkk a ci yàlla ñàkk a dëhërloo yàlla loola daa bokk ci li nga xamee ne day joxe al usnu te mooy njàqare ak naqaru xol kon daa mel ne tudd naa weer fanweer yoo xam ne nii ci sabab ñàkk euh, ci sabab al axsaan ci la bokk kon nañ taxaw foofu yem foofu kon gis nga yëpp weeru koor da koy dàq weeru ko daal day dàq bépp njàqare bépp loo xam ne day xatal suñu xol weeru koor dañu koy dàqal kon naa yem fii ba suba mu ñu àggale incha allah li des ci ñëw ña ci kull bi ak axsaan bi ñuy def nakira ba noppi euh, def ko jamoo إن شاء الله لن تدعي إني خبنا خسيرة في آخر رجال خسيرة كونها لا خسيرة كخور لا خسيرة كريز لا سنتوا فينا نجلو بارة بارة بارة بار بنا أوكي الله رك ما نكون من طيبي نعدهن غانت ديجي كلو بعد أكنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته